jërë ngeen jëf mbokk yi tey nag ñoo gisandoo li nga xamante ni moo xew kii di njiital Pastef di Ousmane Sonko jamono ji nag mi ngi ci loxo ñi nga xamante ni ñoo di takk der yi tey jii nag ñun ñëpp ñoo ko gisandoo fépp foo xamante ni dem nañ fa rek ñi ngi gis bëri na ay ñaxtu yoo xamante ni mu ngi fay am mbir mi xew tey nag nekk loo xamante ni lu doya doya doy waar la nekk loo xamante ni tamit gàcce la ci képp koo xamante ni da di ak sénégalais moo tax damay faral di wax ni képp koo xamante ni tey waxoo mën naa ni ab naa féq nga ab naa féq rek mooy toog ni patt wala bokk mu daal di gis dëgg ba pare daal di ciy dëgg tànkam ki nga xamante ni moo di njiital Pastef bañ ko joxee li nga xamante ni moo di convocation am ginnaaw biñ ko jiñee li nga xamante ni moo di wàllum yàqataan bu ñëk mu bañoon ni du dem ba paré sax dal di génn wax ni du dem ku ne xam na ni ñëpp ñi ngi doon xaar mu lank dal di taxaw fi mu taxaw ni du dem ba ñu fekk ko këram dal di koy patam patamé yobbu ko dal di koy téye waaye nak mu mel ni rek ku xam fa ñi nga xamante ni ñoom la amal affaire jëm ak moom mu dal di lank ni sax moom day dal di rek dem wuyu ji waaye nag ba muy dem wuyu ji yéen a gisandoo li nga xamante ni moo xew ci yoon bi yépp ñu baare fi mu bëggoon a jaar ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni xew na ci yoon bi ba sax ñi nga xamante ni ñoo di ay avocat am bi ñu demee sax ba benn moment ñu bëgg a ñëw pour jëlsi ko ñu leen déet fu mu nekkat dañ koy tuuma ak le dañ ko dañu teg yeneen tuuma ci kawam yu bokkul sax ak ya ñu ko doon toppee te mooy trouble à l'ordre public kon kat kii nga xamante ni bëgg ngeen ko jël yóbbu jamono jii dañ koy arrêté nii mooy anam gi nga xamante ni ci la jàppee njiital Pastef muy dëggal itam ba tey complot bi nga xamante ni waxoon nañ ko dès le début kon daal li nga xamante ni euh, loolu la ñuy jàpp ci mbir mi mooy que ni daal euh, ci jamono yi Macky Sall rek ci la ñu gis ni que ni daal képp koo xamante ni pare nga wala bokk njort nañu ni yow war nga ko war a mën a uutu ci siège bi mu toog. daanaka jot nañ la yóbbu ci wàllu yoon gis nañ ko ci Karim Wade gis ko ci xalifa sàll tey di ñu gis ko ci usmaan Sonko moom moom di Ousmane Sonko sax du bulet muy artu yàgg na di artu di xamle ni ñu ngi ci kawam ñu ngi ci ay tànkam te ku déglu discours am yu mujj xam ni moom ci jëmu boppam xamoon na ni yàgg-yàgg dina ñam li nga xamante ni moo di ci giri yi donc ni euh, ñu ngi koy déglu di déglu discours am mais ku ko déglu rek di nga xam ni moom ci jëmu boppam calculer woon na lu ni mel bàyyi woon na ko xel waaye nag nit boo demee ba koy topp ba koy téye war nga ko téye itam ci anam goo xamante ni gu leer lay doon mais ki nekk ci sa biir oto di dem kooku yow naka ngay mën a bokkee ci ab manifestation boo xamante ni euh, dañu ni kenn joxewu ci ndigal ñu gis ki nga xamante ni moo di préfé bu dakaar ñu gis ko mu taxawee taxawaay goo xamante ni gu doy waar la ñu gis ko mu génn daldi ni nañu dóor acromazelle yi ci nit ñi su ko defee ñu mën a dem y compris même les journalistes yi nga xamante ni dañu ñëwoon ngir daldi def seen liggéey muy mbir moo xamante ni mbir mu doy waar la ndax ki nga xamante ni tey même su guerre amee sax war na nekk ci biir guerre bi ngir daldi mën a def li nga xamante ni moo di métier nga ni dóor leen ñoom ñépp ñu daldi dem loolu tamit nekk mbir moo xamante ni du kenn du ko musa rafetlu gis nañu yàqu-yàqu yi nga xamante ni nag jamono ji commencé na ko jur ñu koy ñaawlu bu baax a baax a baax a baax kon nag mu mel ni rek comme niñ ko waxee sànq teesu complot bi yaakaar naa au fur et à ñuy dem ak ñiy déglu ñi nga xamante ni ñooy àddu ci mbir mi yaakaar naa ñi nga xamante ni ñoo ko sóobu woon xam nañu ni lii fa mu jëm du neex moo tax amaana ñu bëgg a wiiri pour uti beneen bunt mbir mi ba muy soog a door njiitu réew mi Macky sàll lan la waxoon dañu woon ñi nga xamante ni ñoo di ay àndandoom ak ay farandoom dañu leen mbir mii sama yoon newu si taqewuma si bokkuma si te nag li ma leen conseil mooy bu ci kenn àddu te bu ci kenn wax te ku ne xam na ni njiitu réew mi Macky sàll jamono bu waxee ni que ni bu kenn wax saa bu kenn àdduwee rek daal di xotti or ma ku ne xam na ni daana am ay sanctions yoo xamante ni daana ko teg. lan moo waral nag bile yoon mu daal di ne bu ci kenn àddu au début ñoom ñëpp ñu ni tekk waaye nag képp koo xamante ni yaa ngi suivre média yi di nga gis ni weekend weekend bi ñu génn ñoom waa APR ñoom ñi nga xamante ni seen njiit da leen ni noppi leen bu ci kenn àddu ñoo wëy daal di fees ci rajo yi ak tele yi commencé taq rajo yi boo demee grand jury ab Mbow a ngi fa woon euh, ki nga xamante ni moo di Latif Coulibaly mi ngi woon RTS Kële mu ngi woon Sud kële mi ngi woon seen TV ñoom ñëpp ñu daal di wër rajo yi taq rajo yi ak télé yi commencé tijjeeku mel ni ay robine ku ci nekk nga mel ni yow yaay waajuru Adji Sarr ana waajuru Adji Sarr ba ñoom ana lan moo tax ñoom tey ñu taxaw bëgg nekk parent ki nga xamante ni moo di Adji Sarr bëgg ni ñoom ñoo koy ñoo koy défendre ñoom ñoo koy aar njiitu réew mi Macky Sall yow nag li ñu lay ñaan rek mooy nga delloo si sa xel te xam ni benn nguur rek moo dul jeex te mooy nguuru borom bi subhanahu wa bés bu yàlla sàkk ñu daal di dégg nit koo xamante ni nii mi euh, bés bu yàlla sàkk ñu daal di gis koo xamante ni mi ngi ñu ngi doon dund ak moom jékki-jékki rek ñu tàggee ñu ko ni ñu ni ah diwde de wuy jina boromam loolu nag moo tax kenn ku nekk ci ñun rek na ngay xalaat. ni que ni kullu nafsin saa'ihatil mawt bépp bakkan boo xamante ne ñam na dund rek bés dina ñëw mu ñam dee. kon nag kenn ku si nekk rek na ngay bàyyi xel yéen ñi nga xamante ni itam yéen attekat yi ngeen xam ne lépp loo xamante ni atte nañ ko fii tamit terewul ëllëg yowmal xiyaam dinañu janoo ak ki nga xamante ni moo di borom bi subhanahu wa ñu teg ñu ñu taxaw ñun ñëpp mu daal di attewaat te su boobaa nag nañu xam ne atte boobu moom borom bi subhanahu wa taala du ci jéng mukk te itam dina atte atte boo xamante ni bu leer naññ lay doon kenn du xalaat def recours borom bi bu attee ba noppi doo dégg mukk ku naan damay dugal recours wala boog doo dégg mukk ku naan ànduma ci moom moom lenn rekk lañuy def ñun ñëpp mooy àndandoo daal di wax sami'na wa ata'na mooy que ni daal borom bi dégg nañ la d'accord nañ jëfe rekk amul leneen loo xamante ne daañu ko ci teg li nga xamante ne nag mooy dellu ci mbiru kii nga xamante ni moo di njiital Pastef di Ousmane Sonko ak Adji saar njiital Pastef moo def wala deful dara leeruñu ci waaye daal li nga xamante ne leer nañu d'après euh, li nga xamante ne jot nañ ko ci dégg mooy que ni daal. am na ay mbir yoo xamante ni lënt na te ne ci suuf te loolu nag war a nekk loo xamante ni nii lu waroon a leer lay nekk moo tax daal képp koo xamante ne nii da ngay def dara ngir mu nekk loo xamante ni nii euh, lëndëmal xelu nit ñi la na nga ko ba te xam ne un jour viendra di nga janoo ak ki nga xamante ni moo di borom bi subhanahu wa taala mbokk yi lii mooy liñ leen doon dëgtal di leen jox di daje ëllëg incha allahu rabbi sur la même chaîne info 15 point com